conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci cérémonie de mariage yi ci xew yi jamono ji am na lu ci raax loo xamante ni bokku ci woon yéen a kaay gi nee na bu njëkk bu ñu la mosaa takk boo demee da ngay teral say goro ak say njëkkee bu njëkk nag loole maanaam lu yomboon la ndax ay tissu yu nga doon joxe ay wax ak ay xartum wala sax ay kol léegi nag gis nañ ne loolee sëkk lañ ci gis ci biir jigéen ñi ndax ay millions yi millions la ñuy génne ak ay tissus yoo xam ne dafay cher ba jéggi dayoo te loolee yàq lay def waaye amul lenn loo xam ne moom lay defar pression bu mag la ci jigéen ñi ndax bëri na ay mariage ay sëy yoo xam ne lu jëm ci wàllum teralaate googee nga xamante ni moom la ñuy wax moo ko yàq yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu fekk fa Fatou Touré Thiam bokk ci réseau Siggil Jigéen daat nay wax ci yàq gi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku maanaam ci xew yi rawatina ci céet yi ndax bëri na ñoo xamante ni bu ñu ñëw ñu am ko ak ñu ñàkk ko am leeralee seeni goro ak seeni njëkke bu ñu koy lebi sax dinañu ko daal di lijjanti te loolee pression gu mat sëkk la li ci des sax ak yàq la yéenekaay gi nee na jigéen ñi ñoo ngi dund loo xam ne musiba ma bakumba la te ñemewuñu ko wax yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas Sénégal am na loo xam ne lu ñu jara wax la ndax bëri na ay sëy yu yàq yoo xamante ni li ko yàq mooy nga sëy si si kër bëgg a teral say njëkke ak say goro def loo man ak loo mënul rivalité bi nga xamante ni moo ci ama ci ay millions ay tiges ak ay baga norok yooye na dayoo yéenekaay gi de la bàyyi mbir moomee xëy di wax ak président Macky Sall naan ko mu xoolaat boppam ndax yoon nga xam ne moom la Macky Sall jël moom la Abdoulaye Wade jëloon te ba ko Abdoulaye Wade jëlee musiba ma moo ko sa fekk te Macky Sall sax ma ngi nas ay pexe waaye pexe yooyu nga xam ne moom lay nas soo moytuwule moom ci boppam moo say tàbbi yéen a kaay gi xëy na wax ci émigration clandestine bi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg man la ci réew mi libération yéen a kaay daal di wax ne marine nationale bi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom mbëkkoon ak gaal ci biir géej gi ba am ñu bari ñoo xamante ni faatu nañ ci yéen a gi nee na mbooleem nga xam ne bis boobu ñoo nekkoon ci marine nationale déglu lañu leen journal bi nee na am na beneen gaal goo xamante ni explosé na ci waaxi Cap Vert yi bëri na ay sénégalais yoo xam ne ñoo ngi ci wana ak ay gambien am na ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen kaay gi di vox populi nee na en tout cas buñ si waxul boo muy tuwule réew mi dina bëri ay ndaw yu dee journal bi nee na gaal gi nga xamante ni moo explosé ci waaxi Cap Vert yi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay nit ñoo ci nekkoona waaye nag ba gaal ga explosé lu toll si juróom-ñaar fukki nit ñoo ci rëcce maanaam quatre-vingts personnes dee nañu sa yéen a kaay gi de la Tribune nee na émigration clandestine bi lu toll si ñetti junni ci ay sénégalais egg nañu Espagne waaye am na lu toll si juróomi téeméeri nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan laas yéen a ñu fekk fa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieye nee na moom gaal gi nga xam ne moom la duggoon ab bato moo ko mbëkk waaye bi ko bato bi mbëkkee ñett nit kese ñoo si dund ñi si des ñëpp dañoo dee te loolee kenn waxu si yéen a kaay gi de la Témoin ñu fekk fa Moustapha Sow mi nga xam ne moo jiite association bi ëmb sénégalais yi nekk Îles Canaries nee na li nga xam ne moo xew Îles Canaries xew Espagne ku ñu ko wax doo ko gëm bis bu yàlla sàkk ci plage yi danañu fi gis lu toll si ñaari téeméer ci ay nit yoo xam ne faatu nañ ci géej gi ba géej gi ëf leen ba génn leen yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba des bi ñu ko xaymaa nee na lu toll si juróomi téeméer ci ay sénégalais ñàkk nañu seen bakkan ci biir ndox mi ba tey ci biir journal bi moom Moustapha Sow daa wax ne lu toll si ñeenti junni ci ay africains yoo xam ne ñoo ngi ci centre yi ci Espagne te soo danañu leen sànq yéenekaay gi de l'Observateur bàyyi mbirum émigration clandestine wax ci xeex bi nga xam ne dox diggante Aminata Touré ak Idrissa Seck journal bi nee na alxamis bi ñu dëgmal la ñu naroon a installé Idrissa Seck waaye nag da ko mujj dàqandi la ko waral dafa am benn mission de vérification bu Idrissa Seck yabal conseil économique social environnemental ngir mu lëmbët Aminata Touré na mu yore woon kër ga yéen a kaay gi nee na Idrissa Seck yemul foofu ndax daam Camara mi nga xam ne moo nekkoon chef de la division des ressources humaines Idrissa Seck daf ko dàq a Mandiaye Diop nekkoon directeur administratif ak financier maanaam dafa ñooñu ñëpp na leen yéen kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa waa Pastef ñoom am nañu leen doy sëkk ñoom Ousmane Sonko dañoo mer ba maara détail yi ñoo ngi avertir nag Macky Sall ak ñi mu àndala ndax ñoom Sonko nee nañu bëri na seen i activité yoo xam ne dañu koy def état bu Sénégal di leen ko lànkalal waaye nag am na loo xamante ni ñoom nee nañu dootuñu ko nangoote yéen kaay gii di laas Ousmane Sonko nee na accord de pes yi nga xamante ni am na diggante Sénégal ak Union européenne te Macky Sall signé ko nag Sénégal yi xam ne scandale musiba ma bu kumbala ay tojaange la baaxul ci réew mi te Macky Sall dafa violé constitution bu Sénégal kàddu Ousmane Sonko la yéen a kaay gii de Les Échos waa Pastef ak ñoom Ousmane Sonko nee nañu wax ji mooy Macky Sall dafa jaay géej gi te ay jafe-jafe neen la ci xale yi daj yéen a kaay gii di Walf Fadjri xëy na wax ci ñàkkug ndox gi nga xamante ni mooy jàbba jónge ci réew mi cité Jàmmalaay ak waa Grand Yoff niki démb ñoom wane nañu seenu naqar ndax am na loo xam ne ñoom nee nañu mënatuñu koo muñ yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na démb waa RFI dañoo tàggee Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf moo tax Abdoulaye Wade génn na bind ab communiqué wax ne ma ngi en pleine forme dara jutu ko dara wókku ko dara xuriwu ko yéen a kaay gi de la Soleil nee na état bu Sénégal 2012 ba léegi lu toll ci 330 milliards jàppale na ko collectivités territoriales yi yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Augustin Senghor mi nga xam ne moo jiite fédération sénégalaise bu football candidat la ci présidence bu CAF daan nay wax ana fan la ko tekk ba daal di samp ndëndëm ngir jiite CAF yéen a kaay gi nee na Augustin Senghor mooy l'homme de la situation yéen a kaay gi di Vox Populi nee na lu toll ci fukk ak juróom ci ay réew yoo xam ne ñoo ngi